asalaamaaleykum warahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen char di chare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne leen koy defal saa su nekk ci réew bi ak bitim réew jaajëfal nañ leen char nañ leen way leen di topp Fall 94 Walf Sénégal voilà li xew ci bis bi résumé yi nga xam dañ leen koy indil ci table bi euh, tey nag dinañ ñëw ci voilà li nga xam ne ni moo di euh, euh, carte d'identité yi voilà carte d'identité yi nag euh, am na ñoo xam ne nee nañ ñoom fa yéenu noo jaay seeni carte d'identité cinq mille ak saakub ceeb ak tisat ak lu mu mën a doon ñoom jaayuñu maanaam nag kenn ku nekk rek dem ca ña nga xam ne jàpp nga ni boo demee ci ñoom ñu pare ñu pare neel la te bu vingt 2024 ñu woteel la na kenn ku nekk yem ca la nga war a yem rek voilà loolu daal buñ ko defee dina neex lool waaye ndax gaa yi dinañ leen ci bàyyi. gars yi dañoo mën a jënd ay carte d'identité de cay Sénégal 2024 kay élection bu jub bu nekk dana def kenn ku nekk da nga def li nga mën lépp voilà kenn ku nekk tamit da nga génn wane ni daal maanaam réew mi kenn gënalu koo bëgg waaye bu mbir mi jàllee dafay mel dañuy fatu yi maanaam daal jafe-jafe askan weeg maanaam yi doon ñaxtu yëpp du daanaka mën na ne daal dootoo ci dégg kenn yee yàbbi ci mais fi toll nii moom yaakaar naa ne moom. ku ne ah ñu ne la yaaram kàlla wala ku ne tiso ñu ne la yaaram kàlla waaw ñoom koy fi mu ñoo leen di dawal di leen raamal di leen sukkal di leen defal lépp ndax fi mu toll dañuy wàcc ci terrain bi mel ni maanaam ñoom waaw xam nañ dëgg dëgg dëgg li xew lépp waaye daal bu élection yi ñëwee ci leen koy gën a wane loolu nag incha allahu rabbi yaakaar naa ne xam ngeen ko bu baax a baax a baax a baax a baax muy politiciens yi nga xam ne mais nag carte d'identité yi ah, gis ngeen ko noonu waa am ku yor carte d'identité ci wetam voilà sunu technicien ah voilà <laughs> gars yi dañoo gaaw ci fii nga far fee nga far waaye nag Sénégal kenn ku nekk am na foo far waaye nag wax dëgg yàlla eh, ñun ñëpp benn lañ voilà dañoo war a bokk nday bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo loolu mooy defar réew mi loolu tamit mooy tax réew mi avancé voilà euh, kon loolu yaakaar naa ne muy mbirum carte d'identité yeeg prénance beeg voilà ak waajal euh, élection 2024 ak yépp daal fi mu toll ci la gaa yi toll. voilà moo tax fi mu toll nii daanaka mën naa ni fi mu toll nii eh, kenn tëllatut kenn lu de rek maanaam chaque jour bi yàlla sàkk rek yaa ngi xool maanaam deux mille vingt quatre noo gagné voilà yaa ngi xool tamit nu la nu la parrainel nu la parrainel quoi voilà parrainage yeeg yooyu noonu am na ñoo xam nag dañoo wax ne maanaam seeni parrainage mat na ah man da wax dëgg yàlla damaa yaakaar loolu moom xanaa <coughs> ngeen baal ñu loolu moom faaw la ko voilà xanaa damaa yaakaar ni moom xanaa. gaa yi moom wax dëgg yàlla euh, parrainage parrainage yi kañ la commencé kañ lañ fi matal ah loolu nag moom yaakaar naa ne war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax am na ko matal daal <laughs> cay Sénégal voilà beneen bi ci des tamit moo di ñu dem ci walla euh, ñu dem ci football bi euh, football bi tamit voilà xam naa ne Champions League bi voilà tey ñu mën cee jógati Paris. ak euh, voilà Paris Barcelone voilà Champions League bi nag euh, euh, mi ngi daw Paris moom maneegul na maneegul nañ ko 3-1 xam naa ne match yi ci kanam tuuti rek mu jeex bu ko defee rek voilà ñu jàlle na ko incha allah voilà beneen bi ci des tamit mooy sunu équipe nationalu gaynde yi xale yi fële ci mondial bi ñu doon def fële ca Malaisie mu nekkoon nag mondial boo xam ne wax dëgg yàlla. Euh, mondial bu neex la woon ñoom nag toog nañ waaw ci euh, demi-finale yi voilà beneen bi ci des tamit moo ñu ñëw ci euh, voilà TikTok TikTok nag fi mu toll nii moom yaakaar naa ne Sénégal taq nañ ci rip ba tax na plateforme bii di TikTok maanaam daal ay mbiram fi tol toll nii ay jafe-jafe la am fii ci Sénégal gars yi daal bala ñu cee dugg moom faw rek faw faw faw ñu am VPN VPN daal moo leen ciy dugal voilà ndax lan la. xam naa ne nag dañ dañ leen a dañ leen a maanaam li naan dañ leen a sanctionné fii ci Sénégal lan moo ko waral am na lu fi xewoon bañ coupé woon internet bi ba coupé waale réseau bii di TikTok voilà réseau TikTok nag daa ñëw ci jamonoom rek tombante waa jamonoom waa jamonoom nag tamit dégg ko waaw mu bari ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen yoon nekkul ci kenn dañ ci liggéey sóoraale woon nag ñooñu ñi nga xam ñoom daanaka mën naa ni ñoom créé nañ seen entreprise bu bopp muy seenum xel ba dem ci TikTok bi. di ci mën a def wala di ci mën a jaay ak jënd di ci mën a def seeni marchandise di ko jaay par en ligne buñ ko coupé nag dañu am problème loolu lañ naan ñax gu wow dana lakk ba lakkaale gu tooy léegi nag ñi ci nekkoon doon liggéey ak ñi nga xam ne ci doon business yi yëpp maanaam dem nañ ba yàqalaale sax wala mais nag dafa mel ni délégation TikTok dañoo ñëw fii ci Sénégal lañu wax délégation TikTok ñëw yi ñoo moom TikTok kan chinois yi boo demee ñoo ñëw fii ak seen délégation xam nga nag réseau bi daa am doole xëy na nag maanaam kenn ku nekk eh, ñëw nga ci biir réseau bi participer wala ndax xam tubaab bi moom bu ñu gisee luy dem rek faaw ñu dugal ci seen alal ñu jàppoo nag ñoom dañoo mën a jàppoo bokk ndey bokk baay la ñuy def bu ko defee nag dañuy am doole suñu doole moo tax ngay ñu ni ñëw nañ fii ci Sénégal pour xool ba xam TikTok. Euh, lan moo tax maanaam amatul doole fii daal voilà xëy na nag loolu yëpp dañ leen ko signaler wala ñu xam ko ndax ñoom ñoom ñoom seen ñoom moom seen plateforme loolu tamit wax dëgg yàlla mu ngi ci euh, Sénégal yaakaar naa ni kon euh, kenn ku ci nekk war ngaa xam dëgg dëgg dëgg dëgg àdduna bi fan la toll ndax yaakaar naa ni dara umpeetul ci àdduna bi voilà ndax réseau yee tax voilà liñ naan application am léegi dañ leen yebal ci réew réew ñi immigré ci réew yi ndax application yi léegi ñooy immigré yi ci réew yi ndax TikTok mi ngi fépp partout dans le monde ñi ko moom fan lañ ne Chine wala fu nu mën a nekk rek maanaam seen application daal mi ngi ci réew yépp voilà ñu ngi ci mi ngi ci réew yi nga xam ne maanaam seen application fi mu mooy immigré ndax réew mu mu dugg waa réew moomu noonu danañ ko jëfandikoo ci façon bu nekk nag voilà moo xam bu baax bi la moo xam bu bon bi la voilà léegi loolu nag mooy avancement adduna adduna dëgg-dëgg foofu la toll da am ay ndaw yu xarañ. bu xarañee nga jàppale leen jox leen ay moyen ngir ñu ñu créer loo xam ne ni bu ëllëgee Sénégal dana ci bénéfice waxuma biir Sénégal doomu nga de international ndax TikTok fi mu toll nii mu ngi international kon ñu ngi gañe ay milliards muy dugg ci seen gafaka voilà ci seen réew di gën a yokk di gën a avancé ci kanam loolu nag war nañ ci amaat am njàngat bu baax a baax a baax a baax kon yaakaar naa ne chaque jamono rek dana am loo xam ne dina xew waaye dañ cee war a jàngataat bu baax a baax a baax. ñun nag am nañ ci ay ndaw ñu xarañ ñoo xam ñi ngi ci biir voilà bu ko defee ngeen xam ko bu baax a baax ay ndaw ñoo xam ku leen jàppale ah yaakaar ne de danañ am ay plateforme yoo xam ne nii yaakaar naa àdduna bi danañ ko soxla ndax sénégalais yi xarañ nan voilà kon mu ngi noonu kon daal lii la indi loon tey jii ci résumé yi nga xam ne ni moom lañ leen di defal saa su nekk fii ci 94 Walf Sénégal jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen sama technicien hmm?